pes bi daanaka euh, moo tee nelaw mool yu bëri tey mool yu bëri euh, actuellement ni may wax ak yéen génn nañ euh, fi nga xam te ne mooy Ndar dem ay côté Kayar ak i Kafountine pour mën a daw li nga xam na ni mooy presse bi ñi si bëri aussi dem nañ immigré ji ñu si bëri bàyyi nañ toog nekk ci leneen parce que tamit liggéey bi nga xam te ne yaa ngi koy liggéey di risqué sa bakkan Euh, à chaque fois bo démé woro ni di nga yegg bo boo ñëwaat yóoroon ni di nga yegg say njaboot mu nekk lu metti depuis bobu légui mu rey plus de 400 et quelques personnes gouvernement du Sénégal euh, jëloon temps yi passé ben bateau chinois euh crois ay ay hollandais lan ñëwoon ñu né dañuy traité fi nga xam tane moy mooy euh, bël bi mais mu nekk loo xam te saboté la ñëw na gis ni ban nga défé si suba nga naufrage amaat na.

pour mën di jour tay jatara bobu noonu bo taxawé fi ci genn la 10 km lay la lay dikkee plateforme bi bii bi nga xam ne ñoy exploiter exploité suñu gaz bi bi ñu Saint-Louis euh dañu xol ni plateforme bi fu mu fu fu nga mëna tek moy fi nga xam te ni am na fu mu pour bu ko defee plateforme bu mëna suru parce que suuf géej dafa nooy ñu ñëw ba ci fi nga xamante ni mooy jatara teg fa mais jatara li si garaaw mooy bëri na si ay mool yi nga xamante ni seen dépense euh, euh, bés ñu ko doon dem di jëli ji foofu.

la plateforme jatara bi xañ li nga xam ne mooy seen liggéey passé dama doon def ay étude man ak ay euh, benn presse boo xam japon lu jógee ñu dem fa ci nit ñuy waxtaanee benn mol doogu jóge ci géej gi ñu ñëw interpellé ko mu ne bi muy dem naru na lu mat 15000 euh, francs muy euh, meb bi limuy jox jën pour mun leen jàpp ak essence bi ak li nga xam lay ndéké bi mu ñibbisee mi ngi jàpp ñetti jën ñetti jën yi boo ko évalué mi ngi nek 900 francs té tay ñom loolu lañuy ñuy dund chaque jour chaque jour ñu may wax yéen ni mol bi mi ngi dem euh, ci sedd bi ci géej gi bu ñibisé du am 1000 francs yoo xam ni moom lay yóbbu kanam da ngay gis ay mo yoo xam ne dañuy jugee Pikine euh plus de 4 km diko dox pour mëna a ñëw liggéey parce que lan 100 francs bi nga xamante ne sax euh, euh, ñu ngi koy duggee bis amuñu ko tay ji looloo waral immigration clandestine bi ñom gis si bëri daaj seen gaal yi dem Espagne loolu aussi nek na li nga xam ne ngi interpellé gouvernement bu Sénégal comme fi nga xam ne ni mooy Mauritanie jege nañu loolu Mauritanie ak ak ak gox mbaaj daanaka benn la.

ci waaxu Mauritanie la bañ a sori mën fa dem di wuti ci ay jën yi nga xamante ni dinañ si mën a jaay dinañ si mën a aussi rafetaaye ñi nga xamante ni mooy Saint-Louis yi